73 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. point de la rédaction sur Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm dem bekk di ànd ak yéen saa su nekk uh, ci seen point de la rédaction fas yéene ànd ak yéen faram fàccee leen lépp luy actualité fait divers maa di ci ak Moustapha mbay Moustapha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Eva di la bëggee bu baax a baax di am mbégte di delloos di fegu ak yow. si sunu plateau bi nga xam ne dañ koy amal bis bu yàlla sàkk di ci jàngat lépp loo xam ne actualité la. merci beaucoup am mbégte di feggoog yow ginnaaw bu ma fi wuutoo ki nga xam ne moom moo di Mahfous Moustapha tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne ni moo di euh, remaniement bi jot am ci réew mi ginnaaw euh, gouvernement bi nga xam ne njiitu réew mi bal na ko Idrissa Seck mi fekk ji Macky Sall waaye itam Mimi Touré mi nga xam ne wàcce nañ ko mu jur coow euh, point bi nga xam ne mu laay njëkkee wàcc gi Mimi Touré wàcc daal di def ki démb nee na képp koo xam ne jóg nga pour euh, tilimal di deram ci li nga xam ne euh, moom fa la jógee mu di conseil économique social et environnemental ci lu ñel wàllum peut-être ku tey jii ku bëgg a taqal deram parce que gis nañ fi ñu bari tey bu ñu wàccee dañuy commencer di am lu ñu leen di euh, épingler que quoi que dañu dañu leen wàccee c'est parce que dañu def gestion bu baaxul wala dañu lekk xaalisu réew mi wala wala lu demee noonu mais Mimi Touré dafa def communiqué boo xam ne jàpp nañ la wax est-ce que du dafa wane ne quitté na li nga xam ne moo di APR definitivement wala daf koy wax uniquement pour seetal deram sa gis-gis waaw man dama yaakaar ne dafay jëlee devant dafay jëlee devant parce que ku xam tuuti histoire parti boobu di APR gis nañ yàgg doxale ak ñi nekk ci parti bi yëpp dalee ko ci Moustapha Diakhaté Moustapha Cissé Lo euh, Thierno Alassane Sall ba ci Abdoul mbay ak ko koo xamante ne rek àndoon ak ñoom ba génn rek après boo moytul dina may ay attaques yoo xam ne dafa lay dal mhm. donc euh, lu bëri boo boo boo amul benn taxawaay bi rek boo moytul di nga jël ay coups loolu nag moom laa yaakaar ne dafa jëlee devant di leen jiitu parce que am na loo xamante ni dafa feeñ démb mooy dafa am presse bi ñu bind ne moom euh, ni mu yore woon fële ci conseil économique social environnemental daanaka yorin bi taxu koo seetlu noonu. Mm-hmm. ba tax na foofu nag la ko Macky Sall téye ba bu ñu moytul kayit yooyu bu ñu ko génnee mën na ko indil problème ëllëg bu donc moom nag mu def communiqué daal di ne li mu yoree mu amul dara lu ñu ko ci mën a te yenn baat sax ku ko yëkkati amaana dàqul yóbbu la ci yoon. ba muy xoddeeku balaa muy lakkale. xoddeeku balaa ngaa lakkale effectivement waaw. donc parce que loolu koo xamante ne tamit du gan ci langue politique bi kuy ànd ak Macky Sall depuis mu faloo ba léegi. koo xam ne du ku ndaw tamit ci ci ci ci ci mouvance présidentielle bi moo tax mu teel jël ay devant parce que xam na ñan la ko seqal xam na ñan la donc peut-être bu leen seetaane am na fu ñu yegg ak moom mais bu indee jikko pànk bi war na leen man pare naa pour defante ak yéen dina tax ñenn ñi nga xamante ne doon nañ waaj ak ñenn ñi nga xamante ne déjà braqué woon nañ pour jóg pour song ko donc loolu lépp dina tax ñu ñu ñu mën a moytandiku xam ne kat euh, Mimi du koo xamante ne dañ koy jël rek euh, daal di koy euh, élimi dañ koy dàq ba pare éliminer ko xam nga am na ñoom noonu lañ lay def dañ lay dàq ba pare éliminer la mhm. buñ la dàqee nag boo yambaree dañ lay éliminer mais buñ la dàqee voilà boo boo amee tuut sa dëgër laay nga gëm sa bopp taxaw xeex doo nangu kenn di la éliminer parce que dañu am carrière politique bu njëriñ suivre tappal la étiquette euh, gis mhm. nañ ko fi de comme ni nga ko waxee ci ñoom Moustapha Diakhaté ak ni ñu mel mais ba tey est-ce que du li ñuy wax euh, que dafa bëgg bokk ci présidentielle 2024 loolu aussi Euh, bokk na ci liy firndeel communication bi mu def démb. non pour man li mu def démb c'est par rapport à une situation donnée parce que 2024 moom dafay teel mu prononcer parce que fi ñu toll li mu jàkkaar lool mooy génn bi ñu ko génn bi ñu ko génnee ci gouvernement bi ëllëgam lan lay doon ndax dañ koy jël boolewaat ko ci ci beneen fànn. parce que président am na yeneen moyens yoo xam ne mën na ko utiliser pour liggéey ak moom. ndax daf ko écarter définitivement loolu lépp ci kanam nañ ci xam dara mais pour le moment ni ma jàngatee communiqué bi mooy Euh, dafay mettre en garde ñi nga xamante ne dañu ànd ak njiitu réew mi te du ñu hésiter benn yoon di song képp koo xam ne àndatoo ak ñoom parce que fi ñu toll nii mi Aly Ngouille Ndiaye mi Mouhamadou Matar Cissé mi Amadou Ba tey jii dina am ñoo xamante ni ku ci jógoon tàll le petit le plus petit doigt rek di nga gis ñoo xamante ne ñii dañuy jóg daal lay song parce que pourquoi parce que dañuy jàpp ne président daf leen wàccee kon ñi waratuñu exister politiquement te dañuy fàtte nguur am na opposition am na ku nekkatul ci nguur war nañ laa mën a may nga opposé mais ñoom dañoo jàpp ne ku nekkul ci nguur dañ la war a éliminer waroo sax opposé wu te démarche boobu lañuy ñuy doxee ak képp koo xamante ne euh, nekkatoo ci nguur gi ba dañ lay dañuy commencé di la xaxaar di am taxawaay boo xam dañ koy am ci ba boo dëgërul tuuti rek euh, mara de taale boo moytul sa carrière politique euh, dootoo dooto dooto dootoo amati benn existence bi Moustapha ralliement sa Seck doon na loo xamante ne ni euh, ñu ngi koy commencé di mokke à travers les réseaux sociaux niñ ko lugate ba dugal ko ci ci ci gouvernement bi instant bi te nekk loolu loo xam ne moom la ñëpp yi xaar ëllëgu Idrissa Seck lan la. waaw mais dem na fekk ji président Macky Sall mi benn acte boo xamante ne. Euh, wax nga ko léegi nit ñaa ngi koy joobaa jonge ci internet bi saa su nekk ku nekkaa ngi wax mu yombeel jamono joo xam ne tamit dama yaakaar ne dama naan kii def rek na nga def jàmm et pour man lii ñu xewal di vaar war na tax bépp kii politicien looy wax nga wax ko waxaat ko xoolaat ko xoolaat ko bu baax balaa nga koo génnee gaaw nañ ci dem mi ngi noonu parce que loo fi wax tamit tey bu subaa ñu génne la ko fi mhm. te loolu jara bana bàyyi xel la parce que ñu lay génneel image ngay laaxatu dugg suuf wala ngay tëb tëb nëbb say bët wala di lay expliqué wu te dara gën a ridicule ngay jéem a layal loo xamante ne c'est c'est kenn mënu koo layal mhm. loolu boo koy def da ngay te da ngay da ngay da ngay da ngay ñàkk da ngay ñàkk classe. te boo xoolee liñ koy mokkee ci réseaux sociaux yëpp moo ko wax wax na fi sax ne wax dëgg yàlla koo xam ne vision am rombul jam ñaajo gi. Mhm. ah léegi bu demee ba vision am rombul jam ñaajo mu ñëw ànd ak moom ba duñ yéemale jam ñaajo. waaw mi ngi noonu mais xam nga xam nga loolu moo waral gis nga dafa dafay dafay image boo xamante ne dafay tax fi ñu toll nii. Mhm. kàddu politicien kon dootu ko gëmati. parce que loolu bu njëkk fan la yemoon ci campagne la yemoon dañ naan politicien bu ñëwee di campagne ci bi wax fatal say nopp xool ko rek jëmm ji bu la doyee wala gis li mu la li mu bu la doyee nga dem votel ko mais bul déglu li muy wax parce que li muy wax tegu ko fenn su génnee sa buntu kër fàtte na ko parce que beneen kër loolu la fay waxaat mais suñu demee ba ñu déplacé ko si campagne bi léegi indi ko ci espace public bi di ko waxtaanee di ko waxee te loolu li waxtaan gëmuñu ci dara parce que tey bu def campagne nga ne lii su ma suñ dama ko fiy jëlee parce que gëm naa ne amul njëriñ fii yow falu woo ki falu jël la dénk la ko pour man tuutal nit ki mënul weesu loolu et loolu pour waroon na mën a xool sax beneen façon bu ñuy liggéey wala beneen façon ni ñu collaborer pas muy jël euh, conseil économique social et environnemental parce que pour man fi ñu toll nii Macky Sall la devant ni mu ko jiitoo dafa bari li mu jiite Idrissa Seck dafa bëri dugal na ko nag ci benn benn benn benn benn nu ma ko mën a waxee benn yoon boo xamante ne fi ñu toll nii du mën a dem ci opposition bi te ku jëf te fi mu nekk nii àndandoo ànd politique dafa jafe. Mm-hmm. seen ànd mi ngi dooree ñi nga dem ñi ngi dugg ci deux mille vingt et un incha allah deux mille vingt et un deux mille vingt deux deux mille vingt trois jàpp deux mille vingt quatre lu ne mën na cee xew leader bu nekk mën na see juddu koo foogul woon sax mën naa génn am benn position bi te yooyu yëpp sóoruñu ko pour man euh, pari risqué la def boo xamante ne bu moytuwul bu moytuwul bu si bu si bu si amee ne du. du méngoo ak li mu doon bëgg rek fa lay jaaree suulu ba faw ci wàllum politique. dans tout ça ban position la Idrissa Seck di taxawee ci élection 2024 parce que bu fekkee comme ni nga ko waxee mënul delluwaat ci opposition bi euh, bu njiitu réew mi présenté waatee élection 2024 ban position la Idrissa Seck di taxawee. mais foofu le risque bi nekk Eva parce que tey ji imagine toi ñu dem ba mbiri jaxasoo mu am yeneen événement suñu diggante Macky Sall troisième mandat tenté ko. mu foncé dem troisième mandat ni day déposé Idriss Seck su boobaa fan la jëm parce que opposition bi ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon def coalition déjà génn nañ ci ay mbiram. Euh, beneen camp opposition radicale bi xalaatuñoo ànd ak moom donc kon fu mu jëm su boobaa benn parti la doon parti bi tey jii fi ñu toll boo ci génnewoon coalition yi topp nañ ko li mu am ci présidentielle boo ko daggoon par quatre daanaka benn bi lay am donc ce qui réew mi rek doole ñëpp xam nañu dafa wàññeeku bu baax a baax parce que réew mi ba dooroon jamonoy 2007 réew mi ba dooroon jamonoy 2012 ba dooroon jamonoy 2019 sax tane woon na mais ñëpp gis nañ doole wàññeeku na bu baax a baax parce que boo perdre ay kàngam yu mel nii Euh, nga am Omar Gueye nekkatu fa Omar Omar Omar Omar euh, Omar nekkatu fa mu bëri ñoo xamante ne euh, quitté nañ parti réew mi dafay dafay doon loo xam ne ak Pape Diouf ñoo xam ne dafay doon loo xam ne faw mu feeñ ci parti mais mais dans tout ça njiitu réew mi est-ce que du loolu la ci jublu parce que ku ne xam ne ne Idrissa Seck dans les normes moo waroon nekk chef de l'opposition parce que ginnaaw Macky Sall élection moom moo ci toppoon léegi bu fekkee ne nag ñëw na pour wàññi dooleem boobu est-ce que du lool la ci jublu pour élection 2024 oppose opposition bi gën a gën a wàññeeku moom mu gën a am doole ci ginnaaw euh, bu àndee ak Idrissa bu ko defee mu jëlaat présidentielle 2024 bi am na am na ñu gisee noonu xam nga fi xew loolu dama dama dafa tax ma jàpp ne jamais moom ëpp naa waxat surtout si politique gu Sénégal. lu nekk ngi ci lu nekk ngi ci am na ñu jàpp ne mën na ko woo ba mu ñëw mu kase ko politiquement. Mm-hmm. am ñeneen ñu jàpp ne daf koo woo pour bu ñëw mu dénk ko nguur gi après mais lépp lu ci mënti am rek si kanam dañ ci xam dara l'un ou l'autre daal lépp lu ci mënti am ñaari chemin yooyu ñoo fi mën a nekk jamono ji parce que Idrissa Seck mu génn mu dem ba nii dem ba ba ci kanam. te fi ñu nii su demoon sax bañ bëgg ko dénk parti bi parti bi dafay fissuré parce que dina am ñoom dañ ne du nekk ci ginnaaw Idriss dina am ñoom duñ d'accord nekk ci ginnaaw Idriss su boobaa dañuy ber seen langue dem donc effritement de voix dina am forcément te loolu bu amee du arrangé nguur bi ce qui veut dire benn personne boo xamante ne dafay unanimité wala dafay dajale force yëpp yi nekk ci APR du yomba am parce que APR am na ay réew mi pour mu fësal ko élection 2024 yi euh, mën naa bokk mën naa bañ a bokk war naa mën a tax nit ñi tamit ñaaw njort ci côté boobu. waaw waxul lu leer moo tax waxul lu leer moo tax ba léegi rek ku nekk yaa ngi yaa ngi yaa ngi wax. jiixi jaaxaat yaa ngi jiixi jaaxaat <laughs> mais man moom dama mës a <laughs> dama dama yàgg gëm ni yaakaaruma ne dina def troisième mandat. Mm. peut nag li muy def nii ay calcul politique la ak yow moo tax bi Idriss Seck ñëwee damay gën a dëggal sama gëm-gëm boobu rek jàpp APR dafa doon benn mouvement boo xam ne forcément dafay soutenir candidature Idrissa Seck parce que tey jii lépp luñ ci mën a wax bu fekkente ne moom ñoom ñoo xam nga ñoom ñoo organiser waat élection yi mhm. ñoom ñoo yor seen ministère de l' intérieur ñoom xamante ne kële dina ne ah man kat peut-être jiitu naa tuuti ñi nga xamante ne organiser wuñu xam ne ne élection bu parfait bu parfaite à 100 pour cent mënu fee am faw nga gis euh, après ñu ne dëkk fële am am fa woon kandi am carte amu fa woon wala fii lii am na fa lële am na fa donc détails yooyu ñi di ko xeeb peut-être mën na mën na mën na jouer ci ci ci ci benn benn benn candidat bi mais daal lépp lu ci mënta am comme ni ma ko waxoon sànq rek mbir la boo xam daal c'est risqué ci ci engagement bi mu jël. c'est risqué ci engagement bi mu jël merci beaucoup Moustapha analyse bi am na solo ñu wéyal waxtaan ba tey wax xam ne moo di Cheikh Hadjibou Soumaré gis nañ ne am na kàddu yoo xam ne yëkkati na faluk Idrissa Seck mi nga xam ne moo nekk jamono ji conseil économique social et environnemental ginnaaw Mimi Touré nee na jamono ji nga xamante ne ni moom la ñuy fal Idrissa Seck moom nekk fu woon mi ngi ci élection présidentielle yu Côte d'Ivoire waaye décision bi sa Seck jël yëgu ko Moustapha loolu nekk loo xam ne itam bu noppi nangoo gëm yeneen noppee ca des du ñu nangu gëm parce que diggante Idrissa Seck ak Cheikh Hadjibou Soumaré am nañu yaakaar ne nëbboo warul am seen diggante ba mu ne yëgul waaw xam nga ñoom tey ji damay damay jàpp ne dañoo bëggoon continuer loo xam ne jarul woon continuer parce que dañoo def coalition dem ci élection bi élection bi jeexee ku nekk da nga dem liggéey ji mm-hmm. mais élection bi jeex ñoom ñëpp ñu bëgg dajaloo wàcc ci su boobaa arrangé wu leen woon sax wu leen woon parce que du ñu parce que lu mbooloo ñëpp di defandoo defandoo nii ngeen am benn leader ku nekk da nga toog di xool ni leader baa ngi liggéey wala benn ñaar ñett ñooy liggéey ñeneen ñu toog di nelaw mais bu ku nekk demee di di di taxañ sa wet su ngeen dajalee di am say woo xamante ne amaana mooy ëpp solo bu ngeen bu ngeen bu ngeen bu ngeen ko joxee kenn rek mu dem taxañ yi loolu moo tax ma ne ba élection yi jeexee lañ ko waroon naa jemale foofu idi coalition idi 2000 2019 daal di ku nekk dem Malick Gakou dem Pape Diop dem ke Hadjibou Soumaré dem liggéey bu ñu demaatee bay élection jubaat ñu xool naka la ñuy def ba dajalewaat seen i doole dem euh, dagaan baatu askan wi foofu laa leen doon xaare moo tax lii lii am ni du du bettaate parce que tey jii dañuy xam ne ni ko Hadjibou Soumaré waxee noonu la ko Pape Diop waxee ñeneen tamit noonu lañ ci yemee dañoo toog rek dégg ci Seydou Gueye wax ne Idrissa Seck tabb nañ ko donc loolu nag di loo xamante ne mu mu betti leen mais boo suivre affaire bi ak Idrissa Seck li mu wax noonu ne doon na négocier ak président Macky Sall ñoom ñaar bon doon nañ doon nañ def ay tête à moom moo ko wax ce qui veut ko doon nañ gise lendemain élection présidentielle rek commencé na ñoom ñaar di waxtaan moo tax ñu bëri naan deal am na ci donc kooku tey jii ñu jox ko président conseil économique social et environnemental. Mhm. kooku tey jii mu dugg duggaale ak ñaari ministre am. su fekkoon ne tey jii yëgal na ko Hadjibou wala mu yëgal ko Malick Gakou wala mu yëgal ko Pape Diop. tey ji problème mu séddale ñaari ministre mën na posé wu du ma ne nag mën nañ ne ko demuñu mais tey ji imagine toi ñoom ñu ne ko dañuy dem tamit mais su boobaa président Macky Sall est-ce que dina la mën joxati ñaari ministre dootul doyati te su boobaa problème mën na am beneen mbir tamit ni ñu fexe woon ba tëj wax ji kenn xamul li sekk ndax day dugg parce que euh, Aly Ngouille Ndiaye Mahammed Boun Abdallah Dionne ñëpp jotoon nañu information Mamadou Matar Matar Cissé ni ñii duñu ci gouvernement bi mm-hmm. mais bokk Idrissa Seck ñëpp ñëpp ñëpp la bett amul kenn ku mu bettul ñëpp Eh, ni ñu def nag ba tëj affaire bi information ba dara ba dara verrouillé ko ba dara génnul ba dara fuitewul tey ji su fekkee ne dañ cee dugal beneen leader boo xamante ne bokkul ci Idrissa parce que Idrissa li daal li ci li verrouillé information ba ñu ko jege sa sax ne day bokk. ba ci bés bi mais foofu laa bëgg ñu ñëw est que tamit li mu wax du day camoufler bañ ko ko gàkkal deram tey comme Idi dem na gis na ŋàññi bi nit ñi ŋàññi Idi est-ce que yëgul woon jamono ji taxaw pour seetal deram rek na yëgul. waaw c'est normal c'est normal parce que comme ñoom ñoo bokk coalition bi kay lekkoo bul nangu ñu ñineel sa gémmiñ c'est normal ñoom ñoo bokk coalition bi kay moom dem na kay ku nekk na génne taxaw wax na man ba muy dem yëguma ko wala ba muy dem euh, sama yoon nekku si woon dégager ses responsabilité parce que tey jii comme ni ma ko waxee léegi nii bu leen bu leen Idriss Seck impliqué woon sax nit ñi nañ jot ci information balaa idée dem te su boobaa peut-être ay pression dina am fii ay déclaration am fii wax am moo tax dañoo def tout verrouiller ko ba kenn jotu si du leader même Idrissa Seck ñi gën a sës parce que bu fàttalikoo jour boobu ñu doon génnee gouvernement bi Yankhoba Diattara dem na RFM RFM nañ ko mu ne réew mi bokkul ci gouvernement bi te képp ku ciy wax loo ciy wax ne tamit da ngay wax loo neex parce que réew mi bu daan bokk Idrissa Seck dañ daan wootu ñu waxtaan ci ñu wax ñu ministère yi ñi am ak yooyu yëpp waaye réew mi bokk ci. léegi léegi Ousmane Sonko moom fan la sukkandiku woon ba wax ne diggante Idi ak njiitu réew mi dafa ko ne tudduma réew mi mais am na ay dealers qui se sent morvan ak sa mouche Ousmane Sonko wax ne am na ñoo xam dañuy opposé ak Ousmane Sonko am ñoo xam dañuy opposé ak président Macky Sall donc euh, xam nga ñoom tey jii bu fekkee ne leader politique nga nga am say naataango peut-être dina am niveau d' information ce niveau d' information fu muy toll foo xamante peut-être ñeneen ñi duñ fa toll. dinañ la indil ay information yow di ko am ñeneen ñi duñ ko am. et je pense que loolu buñ ci sukkandikoo ak tekk tekkaarool suspect bi nga na ko. am na ñu bëri ñoo xam ne tamit doon nañ njortu ne kii am na lu muy pare ci suuf. ñeneen ñi nag dañoo yaakaar ne li muy pare moom ak waa partem la woon ñeneen ñi yaakaar ne li muy pare moom ak Macky Sall te effectivement ñoo ñoo mujjee am raison. pàcc mag duy nelawam Idrissa Seck mujjee naa yow waaye dañ koo lugat ba dugal ko ci fi nga xam ne moom moo di euh, ci ci bi jamono ji mu jur coow ci biir réew mi ba tey wax ji nga xam ne Moustapha Diakhaté wax na ko njiitu réew mi nee na dafa woor waa APR est-ce que du boppam lay lay lay lay défendre côté boobu parce que gis nañ li xewoon digganteem ak njiitu réew mi. waaw xam nga ni nit moom boo dañ ne boo demee ba nekk boo demee boo nekkee nit boo nekk booy booy booy wut da ngay nekk nit mm-hmm. boo euh, njiit. ba nekk kilifa mhm. day am benn monstre bu la gane monstre boobu mooy pouvoir moom dafay def moom dafay dafay tasaare rek dàqal kii faatal kii mhm. dumaal kii mhm. wàcceel kii monstre boobu nag nit ki nga doonoon Macky Sall bi nga xam ne mooy citoyen sénégalais Macky Sall l'ami de Moustapha Diakhaté Macky Sall l'ami de Moustapha Cissé Lo warul nangu monstre bi di ko dominer foofu la différence bi di nekkee am na ñoo xam ne dañuy dem ba dañuy transformé wu totalement en monstre mooy mooy mooy ñi nga xam dañuy nekk ay dictateur après ñoom seen chaise bi du nekk la leen jaral jaral na leen ñu rey nit jaral na leen ñu taal dëkk bi jaral na leen ñu faat ñi ñoom seen yoon nekku si kooku humanité bi jóge na ci moom mais nag jamono ji da ngay gis koo xamante ne tey ji bu faloo rek euh, dafay am problème pour équilibrer ñaari d'accord waroon nekk benn nit boo xam ne dangay ñëw rek ne man nitu simple la vraiment kii sama xarit la woon ñu àndandoon kaay toog fii liggéey mu baax wala mu bon ñëwal liggéey waxuñu loolu dafay baax tamit nga am benn monstre bi comme ni muy génn de temps en temps di régler que pouvoir force la comme ko ni ko Machiavel doon waxee renard bi ak lion bi ñoo war a mën a ànd nga jouer sur ruse bi ak doole bi nga xamante tamit moom nga war a firndeel pour nit ñi di la nit ñi di si bàyyi xel loolu moo tax bu fekkee te nit ki nit ki nit ki Macky Sall la nga jël da ngay jàpp ne aayul loolu gis-gisi moo ñu koy wan parce que ñi mu àndaloo ñëpp boo xoolee ba heure bi ña mu dooraloo woon sos parti beeg ñëpp dalee ko ci mbay Ndiaye ABC Moustapha Diakhaté Moustapha Cissé Lo ñoom ñëpp tey ji gisatu leen daanaka gouvernement yi bokkuñ ci am na ñenn nag ñu des du ñëpp am na ñu des mais li ëpp ci ay xaritoom yi nga xam ne ñoom la àndandoo nu gis gisuñu leen jamono ji donc loolu buñ ci tënkoo nga xam ne kon état du xaritoo kese parce que tey ji faluñu la pour nga ànd ak say xarit kese ñu toog yi diriger day day day fekk ñu mën ko day fekk tamit ñu xam ko nga dogle naa teg si post yooyu moo tax côté boobu tamit parfois dafay baax nga équilibré mais euh, bañ a jël rek ne lépp tamit ay xaritam la ñu war a dañoo war a falu merci beaucoup Moustapha analyse bi am na solo waaye comme li Olof Ndiaye di wax rek daanu mënul daj fépp te li ñu war a wax ci gouvernement bu bees bi ak falaat yeeg li fi jot a xew lépp lépp lépp mënul xaj ci émission bi ba tax na dama lay wax rek nga tënkal ma benn analyse bu ndaw ci li nga xam ne moom lañ fi jot a waxtaanee. waaw li ñu fi jot a waxtaanee rek dañ koy doore ci mbiru miimi Touré bi nga xamante ne euh, def na communiqué di di wane ne moom pare na daal mi ngi leen di xaar mm-hmm. parce que fi ñu toll nii du ko ko li ñu naan ku ma ko rokkas ma dobin la ko xaw ko doon waxee. temps <laughs> yi da olof de. <laughs> waaw waaw ñu ngi ciy ci ngi ciy góorgóorlu ndànk-ndànk waa gis nga. Hmm. donc moom pare na bu baax a baax du koo xamante ne nag ku jar a sóor la. Hmm. parce que ñu quoi qu'on puisse diir koo xamante ne nekkoon na premier ministre nekk fi envoyé spécial président conseil économique social environnemental ministre de la justice. kooku tey jii du du ku ndaw du n'importe kii ci dëkk bi ba tax na ko jara sóor la dafay bokk ci nit ñi nga xam dañ leen di compter ci ëllëgu futuru politique gu Sénégal aussi soit ñu am parti politique wala ñu bokk ci beneen parti mën na am apport boo xam ne mën na ko def loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te xam naa loolu tamit nguur gi dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax parce que du ñàkk ay pôle yoo xam ne dina formé ci wet gi que soit mi Aly Ngouille Ndiaye ak keneen Mimi Touré wala Amadou Ba ak keneen genre ëllëg bu fekkente ne euh, Macky Sall boolewaat leen ci ci ci ci ci ci gérer bi muy gérer réew ñoom ëllëg du ñu bett bu ñu gisaatee ñu dajaloo seen biir créer seen parti wala ñu créer seen mouvement wala moo xam ni ñu koy tuddee pour jàkkaarloo ak nguur gi fi nekk parce que ñoom ma fàttali du ñu mën du neex ñu dugg ci opposition parce que actuellement opposition radicale bi moo fi des beneen opposition bi pratiquement amatul doole noonu donc boo leen ci boo du neex ñu dugg ci opposition il faut ñu fàndal seen yoonu bopp te buñ ko xàllee li ñuy mën a wax mooy continuité la ñuy réclamer d'accord ñu nag président Macky Sall ñoo àndoon waaye merci beaucoup Moustapha kontaan naa ci analyse bi. maa la gën a kontaan Eva di la jox dig daje ëllëg incha allah. kon yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon teewlu ci Sunugal 24. Euh, am nañ mbégte bu baax di jàkkaarlook yéen sa chaque jour euh, di leen indil li nga xam ne moom moo di euh, point de la rédaction waxtaan ci yéen lépp loo xam ne. luy soxal askan wi la luy jëmale réew mi kanam ba tax na dañ leen di jox dikk daje ëllëg incha allah ci beneen point de la rédaction waaye laata boobu damay gërëm ki nga xam ne moo nekkoon ci réalisation bi di Biggy Jackson benn nit ñaar ba ñetti caméra amis chers internautes dikk daje ëllëg incha allah lay doon ci Sunugal 24. Vous êtes témoin d'un événement ou vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer